salam salam uh, ah, suñu mbokk internet yi tay Eva show du fa ñëw pour wax leen naka ngeen def pour abonné ci suñu chaîne L Vision Media légui nak da ngay daal di dugg fi nga xamné ne moy YouTube hein nga daal di Elvision Média tappe ko ci recherche bi dina la ko indi suñu logo bi nga xam ne ne EV la en couleur noir ah. léegi boo leen fa duggee nag da ngeen di bës fi nga xam ne ne mooy abonné ngeen abonné pour di jot suñu lépp bu leen fàtte li nga xam ne ne mooy cloche bi nekk ci suuf ngeen daaj koy bës nga xam ne lépp lu mën ci dugal ak lu mën ci doon rek yow da nga ciy jot ah te doo nekk foofu di recherche yooyu noonu lu bees luñ dugal da nga ciy jot muy euh, série yi nga xam ne ne mu ngi ñëw téléfilm yu neex yooyu nga xam gars yëpp a ngi koy yàkkamti dama bëgg ngeen abone daal di mën a jot suñu lépp ah allez ciao